Sénégalais bu ñu fajee ay cas rek problème am ndax ñëpp fi dañuy daw ñëw. déedéet déet mais machine bay def détecté affaire yi. moo fi am waay waay déedéet dama ne dama ne kenn tooñuñu. kenn tooñuñu xam nga xam nga kan moom tooñ. kan euh, tubaab bi fi njëkk ñëw dugal ko fi yëf yi dem fii ci hôpital bu ñuy xaw ma hôpital Fann dem gars yi calmé ko calmé ko Sénégalais yi ñoo rëy laa min lan moo tax ñu calmé ko rek commencé wax calmé leen tubaab bi calmé leen tubaab bi calmé leen tubaab bi calmé leen tubaab bi ba ñeneen di ñëw. dañuy faju léegi lan moo tax yow Sénégal kenn lekku fi kaña ken lekku fi signal kenn lekku fi ñugub ba pare. coronavirus dal fii dugg si. ba loolu ma métti. daan nga lekk ñugub de. musu eh, eh, <laughs> xoolal xoolal eh, bu mu jib kaw. kaw laa wax bu mu jib. Oh, suuf laa ko waxee. waaw déedéet doo suuf ki nga wax sax mu naan naaw. c'est que xam nga looloo doy Sénégal ñoo rëy laamin yaakaar naa ne na <laughs> ku ne xam ne ni corona bi nii. <laughs> waaye man li ma jaaxal mooy coronavirus bi fan la tubaab fan la jaar wàccul aéroport xanaa. aéroport gii la wàcc. Eh. ñoom ñi nekk aéroport ñoom ñooñee dañoo war a dakk seeni salaire Macky Sall président. attention eh may war président ñun xam nañ ni jàmbaar nga ci Sénégal hmm. président ñu nekk fee ci aéroport daggal seen salaire. président daggal ñu nekk. d'accord ma de seen sa ak kay a ñëw seetaan ba tubaab bi dugg si fii.